أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen wax asalaamu aleykum wa rahmatullahi ginnaaw bu ñu sante yàlla borom bi subhaanahu wa ñu julli su yonent bu tedd ba muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ko sant ci xéewalam yi defal bokk na ci xéewal yooyu euh, may gim ñu may ñu am jot am temps fasiyene ini anda ak si barnaamij binga nga wala programme bi nga xam guru groupe ar rahma mo leen ko indiloon mu aju woon ci téere di mala yasau atfalul muslimina jahluhu mooy li nga xam ne jaaduwul ci ab jullit doomu julit mu koy réere jotoon nañ see jël ay andor ak ay waaye tamit jëloon nañ ci ay bind yu ama am solo comme niñ ko baaxoo defee kenn ku ne xam na ni euh, alxemes ci ngoon lañ si ànd ak yéen kon waxtu wii la incha allah dañuy dalal oustaz Serigne Samb di ñaan borom bi subhanahu wa taala mu dëgëral ko kàttanal ko si euh, programme bi incha allah ñu koy dalal. Euh, kon mbokk yi bisimilah dañuy ñëw dalal oustaz euh, di ko jox li nga xam ni moom mooy suñu laaj bu njëkk si suñu jotaay tey bi laaj bi di tolloog ci téere bi laaju fukk ak juróom mooy quinzième question bi muy wax ne ma huwa taariful quraanil karim lan mooy xamle dëgg-dëgg alquraanul karim tey alquraanul karim bi nga xam ni ñu ngi xëy suba ko jàng guddi ak bëccëg suñ suñ ko laajoon lan mooy alxuraan boobaa lan la ñuy tontu incha allah si loolu lañuy ànd ak ustaas mu firim fàncal ñu ko ba mu leer kon ustaas tafaddal mashkuran bismillahi rahmaani rahim alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa mbokk jullit yi ñu ngi ko sunu borom tabaraka wa taala dafa seen di kaata yéen suñu programme bi muy laaj ak tontu ci téere bi di maa laa yasahu atfaalul muslimina jahluhu li nga xam ne jaaduwul ci benn doomu jullit mu di ko réere téere bi téere bu am am solo la ñu tëgg ko ci anam goo xam ne dafay jàngale ci laaj ak tontu mbokk mi ci àndal muy al ustaas Sëriñ Mbay Jonn ñu ngi koy siyaara bu baax a baax di siyaara mboolem waa groupe bi kon ni ñëw rek mubaasharatan ci tontu laaj bu njëkk bi Alhamdulillah, kon laaj bi nga xamne ne ci la tambalé tay moy laaj fuk ak juroom ci téré bi mune ma huwa quran ana lan moy xamle ak alquran manam dal, ana lan moy alquran buñ ja wax alquran lan lañ ci jublu ngir tontu ci lolu borom téré bi dafa wax ne huwa kalamullahi taala laysa bi makhluqin huwa moy alquran ji kalaamullahi taala moom waxi yàlla la li ko tàmbalee kon ci suratul fatiha tàmbalee ko ci bismillahi rahmaani rahim ba àgg ca minal jinnati wannaasi li na ci diggante bi lépp baat yeeg xaraf yi ak maanaa yi lépp waxi yàlla la tekkiwul ne maanaa yi dafa nekk waxi yàlla baat yi nekk waxi mbindeef wala xaraf yi nekk waxi mbindeef déedéet waaye maanaa yi ak baat yi ak xaraf yi lépp waxi yàlla la euh, bu ñu wax yàlla la nag dañu teg ci nag laysa bi maxluuqin nekkul mbindeef wax jooju lu sosu la maanaam ginnaaw yonente bi salaa lañ tàmbali di wax naan alquran nekkul mbindeef lu ko waral mooy dafa am ay nit yi bidaa yoo xam ne dañoo génnoon di wax ne alquran waxi mbindeef la te waxi mbindeef ku ne xam ne day nekk mbindeef waxi mbindeef day nekk mbindeef su ko defee nag wax jooju la ñuy dàq loolu lañ jublu ci di wax ne laysa bi maxluqin kon alquran bu ñu ko dee xam ne dañuy wax ne huwa kalaamullahi taala moom day waxi yàlla la lafdan wa maanan wa xarfan lépp wax yàlla la laysa bi maxluqin waaye nekkul mbindeef nekkul it waxi mbindeef loolu nag dafa am firnde ci alquran borom bi tabaraka wa taala nee na ci suuratu tawba wa in ahadum min almushrikina stajaaraka fa ajirhu xatta yasmaa kalaam allah summa ablighu mamana borom bi mi ngi wax yonent bi sallallahu alayhi wa mu ne ko su fekkente ne kenn ci yéefar yi dafa ñëw ci yow ngir bëgg nga làq ko jox ko kóolute su boobaa na ko làq jox ko kóolute fat ko ba mu mën a déggee wax yàlla fi yow ndax xam nga ne ku def yonent bi salaa salaam mu fat la bala nga faa jógee da fa déggee wax yàlla mu ne ko kon képp ku ñëw di làqutu ci yow di bëgg a mucc nanga ko fat ngir mu mën a déggee ci yow waxe yàlla xataa yasmaa kalaam allahi summa ablighhu ma'mana ba mu mën a dégg waxe yàlla kon waxe yàlla euh, mooy alquran ji mooy li nga xam ne ku nekk ak yonent bi sallallahu moom nga fay dégg kon dañu ci dégg ne alquran ji waxe yàlla la waaye nekkul mbindeef barakallahu fiikum ya ustaz wa ahsana ilaykum euh, laaju ñaareel bi si jotaayu tey bi mu tolloog laaju fukk ak juróom benn si téere bi muy wax ne maa hiya sunna lan mooy sunna suñu waxee sunna lan lañ ci jublu ginnaaw ba nga ñu leeralee li nga xam ni moom mooy alquran yal na la yàlla fay alhamdulillah Euh, suñu laaju ñaareel bi suñu bindub tey tolloog laaju fukk ak juróom benn ci téere bi mooy laaj wa ma hiya as sunnatu ana lan mooy sunna ana lan mooy sunna ngir tontu si dañuy wax ne sunna am na ñeenti déggiin buñ tuddee ñett ba noppi ñëw ci ñeenteel bi nga xam ne moo nu itteel tey sunna bu ko ahlu luxa waxee maanaam ñi nga xam ne ñooy gëstu fànnu làkk wi rek nga xam ne moom bu ñu waxee sunna li muy tekki rek mooy aw yoon ak aw doxaliin aw yoon ak aw doxaliin loola borom bi di wax ci alquran sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina wala tajidu li sunnatina tahwila yoonu ña nga xam ne yónni woon nañ leen ñu jiitu woon la mu ne wala tajidu li wi lan sunu sunna maanaam sunu yoon sunu doxaliin kenn mënu koo soppi kon sunna ci ahlu luga mooy aw doxaliin ak aw yoon sunna bu ko fuqahaa yi waxee ñu ngi ci jublu li nga xam ne aggul ci farata nga xam ne boo ko defee da nga ci am tuyaaba waaye boo ko bàyyee doo ci am bakkaar ci istilaahul fuqahaa maanaam ñi nga xam ne ñooy gëstu fànnuk fiq bu ñu waxee sunna ñoom loolu lañ ci jublu ñi nga xam ne ñooy gëstu ilmul usul ñoom bu ñu nee sunna liñ ci jublu mooy benn sukkandikukaay la ci sukkandikukaay yi nga xam ne des na ci jëlee firnde ju ñuy jaamoo yàlla mel ne alquran ak sunna ak ijmaa ak qiyaas alquran ak sunna ak ijmaa ak qiyaas kon sunna ci usul yoone yi ñiy gëstu fànn usul mooy benn wéeruwaay ci wéeruwaay yi nga xam ne des na ci jële firnde yuñ mën a jaamoo yàlla di ko layoo sunna bi nga xam ne moom mooy bi ñu jublu tey nag mooy as sunnatu inda al muhaddithin mooy ñi nga xam ne ñooy gëstu xam-xamu xadis ñoom bu ñu waxee sunna li ñu jublu mooy jépp wax joo xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa moom moo ko wax di ci jàngale diine wala jëpp jëf joo xam ne moom moo ko jëf te jublu ci jaamu yàlla wala jëpp jëf joo xam ne dañ koo jëf ci kanamam wala ñu wax ko ci kanamam jullu ci jaamu yàlla mu bàyyi ko mu jàll te terewu ko wala wépp melaw woo xam ne melow bindam la moom yonente bi sallallahu alayhi wasallam wala melaw jikkoom loolu yëpp dafay dugg ci sunna hindal muhaddithin kon daal jëpp wax joo xam ne yonente bi sallallahu alayhi daf ko wax di cee digle lu baax wala mu cee tere safaan wala jëpp jëf joo xam ne da jëf ngir di ca sàkku tuyaaba nga xam ne ak jaamu yàlla la wala jëpp jëf joo xam ne dañ koo jëf ci kanamam wala ñu wax ko ci kanamam mu noppi ca loolu yëpp day dugg ci sunna waaye naka noonu tamit moom bindam bu tedd ba sallallahu alayhi wa sallam ak jikkoom yu mat yu sell ya sallallahu alayhi wa yëpp dafay dugg ci sunna indal muhaddisin te sunna si mooy suñ jublu tey kon sunna ji nga xam ne moom la borom téere bi di laaj fii mooy jëpp wax wala jëpp jëf wala jëpp jëf joo xam ne dañ ko def ci kanam wala aw melaw bindam wala melaw jikkoom yooyu yëpp dafa dugg ci sunna macha allah barakallahu fiikum tontu yi am na solo kon dañuy àndaat ak yow si suñu tontu mujj si jotaay tey bi muy tollook laaju fukk ak juróom ñaar si téere bi muy wax ni maa hiyal bidaa lan mooy bidaa suñ ne bidaa lan lañ ci jublu lan mooy dégg-dégg bi kon al ustaaz tafaddal mashkura alhamdulillah laaju ñetteel bi di suñ laaj bu mujj tolloog laaju fukk ak juróom-ñaar ci téere bi mu ne maa al bidaatu wa hal tajuuzu lan mooy bidaa ak ndax def bidaa dagan na mu mel na kon ñaari laaj na laajandoo lan mooy biddaa ak ndax def bidaa dagan na ngir xam ne loolu dañuy wax ne bidaa moom dafa am bidaa ci luxa am bidaa ci sariya bu ñu waxee bidaa ci luxa mooy lépp loo xam ne amut lu mel ne moom lu ko jiitu woon nga xam ne moom moo njëkk a am maa laysa lahu misaalun saabiq loo xam ne amut misaal mu mel ne moom mu ko jiitu woon loolu borom bi di wax ci suuratu anaam badiu samawati wal ard badiu samawati wal ard mooy ki nga xam ne moom moo fent asamaan ak suuf yi te ba mu koy fent dara lu mel ne asamaan mësul woon a am dara lu mel ne suuf mësul woon a am ba tey suuratu yunus moom la borom bi di wax yonente bi salaa salaam di ko wax ne ko waxal yéefari na leen man kat nekkuma ne maa yonente bi njëkk a am mel na yonente daf damaa jiituwul woon qul maa kuntu bid'an min ar-rusul nekkuma yonente bi nga xam ne dafa nekk biddaa ci yonente yi maanaam yonente bi nga xam ne mooy njëkk am nga xam ne ab yonente jiitu ko woon waaye ay yonente jiitu woon nañ ko kon moom nekkul yonente bi nga xam ne mooy njëkk am kon bu ñu nee biddaa ci loxo loolu lañ ci jublu bu ñu nee biddaa ci sharia nag kullu ma ahdasahu naasu fi diini walam yakun ala ahdi nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ashaabu lépp loo xam ne nit ñi dañ koo sos te mu aju ci diine te loola amutoon ci jamono yonente bi sallallahu alayhi ak ay saxaabaam loola la ñuy tudde bidaa ci sariya lépp loo xam ne nit ñi dañ koo sos ci diine te loola amutoon ci jamono yoonu saa salaam ak ay saxaabaam loole mooy tudd bidaa ci sariya kon buñ nee lépp lu ñu sos lu nit ñi sos kon lañu fi fekkoon taxul ñuy wax loola moom bokkut buñ ne fii diini ci diine ji loo xam ne dañ koo sos waaye loola bokkul ci diine bari taxul ñuy wax lu mel ne microphone wala rajo wala tak ay wer wala kuddu wala montre wala war avion wala yemel non nga xamne ne ajuwul ci diine yoy taxu ñuy wax waye la wax nangam bi daala ci diine moy lo xamne jullit jagoo def mu nekk ak jaamu yalla ta fekk na loolee jamono yenn saa xamuñu ko won waye nit ñi ñoko sos lolé moy tuddu bidda mu ñew na ci laaju ñaaral mu ne ndax dana dagan dedet biddaa daganut lu tax daganut yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom moo ko tere ci xaddis yu wér yu bari danañ ci indi benn yoon saa sallam nee na kullu bidaatin dalaala nee na bépp bidaa ak réer la bépp bidaa ak réer la réer nag yoonu réer jullit bi waru koo soobu te képp kuy sos bidaa wala ñu lay ay bidaa nga di ca topp yaa ngay soobu yoonu réer yoonu réer nag bu nit ki wàccut fa mu koy jëmee baaxul foofu mooy sawara kullu bidaatin dalaala bépp bidaa ak la kon loolu waxi yenn saasam la yenn saasam dana waxaat ci hadis bu wér ne man amila amalan laysa alayhi amruna koo xam ne sos nga mbir jëf nga mbir loo xam ne suñu ndigal nekku ci maanaam digaluñ la ko dañ la koy delloo man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd képp koo xam ne sos na ci suñ mbir mi lu ci bokkut dañ la koy delloo ay xadis yu baree baree baree bari kon biddaa mooy gépp jaam yàlla goo xam ne dañ koo sos ginnaaw yonent bi saa salaam te it ab àtte mooy dëgënut ndax yonent bi saa salaam moom moo ko tere ay xadis yu bari bokk na ci yooyu yooyu kullu bidaatin dalaala rawahu abu daawud hada wa sallallahu wa sallam a nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain macha allah barakallahu fiik ya oustaz ñu ngi lay sant di la gërëm si tontu yi am solo yi di ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu defal ñu tawfiix defal ñu saadatu daarayni kon mbokk yi ñu leen di wax rek euh, détail tey bi loolu la woon ñetti question yooyu lañu ànd looloon ak oustaz euh, ta wax dëgg macha allah leeral yi am na solo kon dañ leen di jox dox daje ba beneen alxames insha allah si jotaay bi di ñaan borom bi subhanahu wa taala ma defal ñu jami aduna waye defal ñu jàmmi alaxira di wax ni wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin